le premier ministre du Sénégal xam nga toog ci espace public bi wax ci benn wax boo xamante ni man amoon naa yaakaar ne ak lim fi wax yépp ak lim fi diggee yépp am na benn wàll boo xamante ni ñoom ci diggee boobu lañu bokk am ci moom yaakaar ba ñu jël Sénégal teg ko ci loxoom ñuy maanaam xaar waxtu woo xamante ni maanaam maanaam it's time to unite maanaam waxtu boole boole te boole boobu dafa laaj gëstu dox dem xool lan moo waral lan balaa ngay toog ci espace public bi rek wax wax boo xamante ni mën naa yëngal askanu lëmm on dans un pays laïque monsieur le premier ministre man su ma neexee man Assane Diouf sama kër titre foncier maa ko moom on dans un pays laïque ma tëgg fi diine ju ma neex woote ci ba mu des violation violé ak laal pas-pasu jàmbur dañoo xeex xeex bu yàgg xeex bu yàgg lool boo xamante ni xeex bi di jullit rekk ko ko xeex du lislaam rek ko xeex de xeex bii suñu mbokk catholique yi dañ cee dañ cee saf-sàpp xeex bii suñu mbokk jullit yi dañ cee saf-sàpp xeex bii ñi amul ngëm-ngëm sax dañ cee saf-sàpp kon balaa ngay wax wala balaa ngay toog ci espace public bi di wax ci loo xamante ni dafa laal pas-pasu jàmbur ci école boo xamante ni école privée la ba pare école boo xamante ni maanaam ña fa nekk ñoom maanaam ay chrétien lañ ñu am seen règlement intérieur boo xamante ni d'accorduñu ci maanaam suñu mbokk yi nekk ci diine l'islam di fa ñëw di muuru ñoom ñu moom seen école état moomu ko c'est privé ko ku nekk moo ci war a dugal làmmiñam ba mu des le premier ministre bi Sénégal Ousmane delluwaatal ci dal man suma frère nga ànd nañu xeex lu bari monsieur le premier ministre delluwaatal ci dal parce que nekkatoo opposition dañ laa dénk dañ laa dénk lu rëy dañ la dénk espoir u jeunesse benn dénk la nguuru Sénégal ñaar nga jiite ko le président de la république monsieur Bassirou joomaay Diakhar fay jël la tabb la premier ministre tu n'es pas le président du Sénégal nekkagoo président foofu rek la nit ñi war a wax ak yow yow Ousmane Sonko nekkagoo le président de la République du Sénégal tu es le ministre du Sénégal te seen communication wallahi man nilaar bi man mi nga xamante ni bañ ma nee jàngal dama bañ sax xam naa ne yéen chaque jour yéen a ngi dugg ci communication boo xamante ni ay erreur kese la parce que même le président de la république ci conférence de presse mi ngi toog jàkkaarlook sénégalais yi naan ñaan naa ko pour assemblée nationale non non non monsieur Bassirou Diomaye Faye da nga war a joxe ndigal ne ko lii moom nga war a def parce que lii moom mooy li nga xamante ni moom la suñu constitution ak règlement intérieur assemblée nationale tënk da koy topp amul ñaan Baay Faal yi dañoo xeex ak njabootu Macky Sall lu yàgg ñuy ay sénégalais ñu xeex ak Macky Sall lu yàgg muy sénégalais bu ñu nangu kenn gën ñoo gore bu ñu nangu kenn gën ñoo gore ci lépp nag parce que lu bari lu bari fi mu toll nii ci li ngeen fi wax li ngeen fi diggee li ngeen fi ne sénégalais yi bu ñu ñëwee nangam ak nangam ak nangam néew ma mënu leen ko de parce que man chaque jour damay am espoir ci sama réew ma gën a am espoir nag ba ngeen ñëwee wax liggéey maa ko ci dolli jub jubal jubbanti bi ngeen ñëwee ne jub jubal jubbanti man dama cee dolli liggéey jub jubal jubbanti liggéey boobu nag xolol dafa laaj nga sol sa dàll dem wax ak yenn kilifa yi surtout lu jëm ci pas-pasu jaambur man jullit laa de mais sama mbokk chrétien yi ñun ëpp la leen dara ci Sénégal parce que on est dans pays laïque bu ngeen xeexee nag xeex ba fexe ba Sénégal nekk pays islamique am ngeen droit am ngeen wax lu leen neex mais on est dans un pays laïque su ma neexee jaamu sama iPhone bi mënu leen ci dara yéen su ma neexee jaamu piis bi nekk ci biir iPhone bi munu leen ci dara parce que on est dans un pays te da ngeen ko fee fekk te wóor na yàlla wóor Seydina Mohamed ne fi ngeen koy bàyyi parce que du ngeen ko dindi leen war mooy liggéey dimbali sénégalais yi ci coono bi ñu nekkee dimbali sénégalais yi ci xiif gi ñu nekkee dimbali sénégalais yi ci ay entreprise ay industrie dimbali sénégalais yi ci li ngeen diggee woon ne bu ngeen ñëwee réew mi du ngeen fi def ay weer di ngeen fexe ba nit ñi yëg seen bopp ne réew mi changé na te sénégalais yi bi fi Macky Sall jógee ba léegi wallahi billahi man ci mbedd mi laa nekk bis bu nekk ñu ngi jàmbat marchand ambulant yaa ngi jooy jaaykatu gerte yaa ngi jooy transporteur yaa ngi jooy ouvrier yaa ngi jooy mécanisien mason menuisier ñépp a ngi jooy te loolu bokkul woon ci liggéey ngir yàlla espoir moom la sénégalais yi am ci yéen ngir yàlla espoir man moom laa yaakaar ci yéen ngir yàlla xeex bii Assane Diouf da cee nekkoon Paul nekk ci Ousmane nekk ci basiru nekk ci Jean nekk ci Barthélemy Diaz nekk ci xalifa Ababacar Sall nekk ci keneen ak keneen ak keneen ak keneen nekk ci te bokkuñu tarixa mais ñoo bokk Sénégal ñoo bokk drapeau bëre di drapeau national bu Sénégal s'il te plaît li waxoon rek lépp lu ñu mayul woon Macky Sall barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñ leen ko may te réew mi kenn moomu ko ku dul senegal Sénégal rek moo moom Sénégal keneen moomul Sénégal ak loo fi mënti am ak noo mënti toll ak koo mën a doon wallaahi billaahi moomuloo Sénégal ku dul Sénégal ay olof nag laa leen wax on est dans un pays laïque Baay Faal yi yàlla nañu yàlla defal jàmm góorlu leen ngeen teg dig bi ci loxoy sénégalais yi balaa ngeen a attaqué kenn xiif mar liggéey pas-pas bu ko laal